contentement bu rëy contentement bu ñu boo am fu muy tàmbali mais amul fu muy yem donc vraiment ñu ngi sant yàlla di di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne lii nii euh, xaaruñu ko woon mais nag c'est une surprise mais joxuñu ma ko man en tant que Aly Sow mais dañ ko jox association pour le bien-être et la solidarité mooy sama moroom rakk ak sama góor yi ma àndal nga xam ne bu jàppee ba léegi bàyyiwuñu donc distinction bi. maa ngi koy dédié à l'ABS à tous les membres de cette association mais aussi au club de ëttu xale yi mooy sama xale yi nga xamante ni tey je pense à eux naaj bu tàng moo tax ñëwuñu donc vraiment je suis très content et nous sommes très honorés waaw ñii ñëpp membre association bi lañu yaa mon frère Mamadou Lamine bi nga xamante ne tey li jëm ci wàllu euh, ëttu xale yi moo ciy nekk moom ak tonton Bobacar nga xamante ni aussi c'est des acteurs nekk ay xale yor seen i diplôme nekk village SOS village d'enfants mais aussi nekk ay jeunes yoo nga xamante ils sont toujours au service population ak sama rakk As Mbaye xam ni il est le il de la coordination de tous les activités de notre association vraiment moom tamit ba mu jàppee ba léegi bàyyiwu donc man lii waruma koon sax téye mais ñoom laa koy jox donc maa ngi leen di déjee trophée bi vraiment message bi may lancer rek mooy nañ jëmbat jëmbat nañ ko def bu ma déggee jëmbat mooy xale yi parce que xale mooy doon lu ne te man jàpp naa ni force ABS c'est les enfants force ABS mooy tout temps yooyu nga xamante ni tey ñoo ngi leen di bàyyi xel di leen jël en charge di fexe ñoom ñu bég di fexe mettre sur le visage de chaque enfant un sourire et c'est ça notre objectif l'objectif de l'ABS c'est d'être la voix des sans voix c'est d'être l'espoir des des de des personnes désespérées donc xale yi man de vraiment jàpp naa ne da message bi may lancé mooy dañ jàppale xale yi man daal mooy suma message tey mooy suma message ëllëg nañ bàyyi xel ci xale yi waaw ak ci jigéen ñi aussi parce que euh, xale mooy mooy ndëtu tànk la ils sont vulnérables ils sont euh, amuñu doole mais jigéen ñi aussi ñooy yaay donc vraiment message bu fort la su ma xol dafa fees dafa sedd donc vraiment je n'ai plus rien à euh, lii ni ñaax la ñaax la dans la mesure dañ nañu góorgóorlu leen lii dafa fort ndax dafa diis aussi ndax góor góorgóorlu leen laa ko tuddee man lii mooy trophée góorgóorlu leen kon ñu ngi sant yàlla ñoo ngi ci remercier ko gàppo fexe ba ñi nga xamante ni seen loxo jotul seen diggu ginnaaw ñu assisté leen fexe ba ñu seen jàng yàqu ñu indiwaat leen ci société bi fexe ba ñi nga xamante ni àdduna da leen a dab ba ñu dëng ñu jéem leen a fexe ñu jubbanti fexe ba ñi nga xamante ni jàpp nañ ne dañ leen a génnee biir société bi ñu delloosi leen ci société bi suñu sas daal mooy nekk au service du développement mais aussi nekk au service de la nation man li may wax rek mooy bu kenn bàyyi sa doom mu dem mais gungeel sa doom mu fekkee yóbbul sa doom ba gis lu la nga fexe mu bokk ndax xale kenn du ko jël di ko bàyyi noonu da nga koy gunge ba mu yegg bu yeggee nag nga xool ba gis loo doy ah ñun de defe naa ni du ma kañu mais ku ñëw ci ñun di nga fa gis loo doy ba jox ni sa doom kon je lance un appel à tous les parents d'accompagner les enfants de les mettre entre des mains yoo nga xamante ni bu ëllëgee ah ñu fa mën a amee dara waaw donc vraiment je waaw vas-y gërëm ñëpp jigéen ñi mag ñi ndaw ñu autorités yi COGAP mais aussi gërëm suñuy wayjur gërëm suma rakk yi ma àndal ak suma jigéen ñi ma àndal mais aussi nag di gërëm Light TV bu baax a baax a baax parce que nag vous êtes la télévision de la banlieue vous êtes notre miroir Euh, mënuma sax définir Light TV xanaa di wax rek ne yàlla na leen yàlla lafal cat macha allah.